waaw kay kon sëñ Ousseynou ba tey ñu ngi fii ci Nema Nazir TV live fii ci réewum Gambia ànd koog sëriñ Ousseynou Diop ak mboolem technicien yi ñu àndal niñ ko commencé woon ci tàmbali gi rek xam naa ne fi mu teel nii moom sama yaram a ngi waaj a tàng ah, ma toog ak sama xarit sëriñ Maam Cheikh fay soldaaru sëriñ Touba muy ku baax di ku xam-xam. mom lañu fas jox kaddu gi ngir mu wax ci guddik tay ji nga xamantene dañ ko jagal Serigne Touba khadim Rasul ci wéru màgg wi nga xam moy wéru Ramadan sëxru Ramadan digënté Serigne Touba ak wéru koor ak xasida yi mom lañuy jox Serigne mam Cheikh fay mu def ci ay leral insha allah rabbi Serigne mam Cheikh bismillah ñu ngi leen fatali ba tamit guddik nga guddig yonenti bi sallallahu alayhi wasallam la mbollem keur diine yep ko bok euh ñukoy defé fi ci gambi ci Latrikunda Buuba zone mbooleem koo xamante ne nii was adah yaangi wax ashadu an la ilaha illallah wa sallallahu muhammadur Rasulillah. rek ñu la tay wo keur diine yep amul murit yaan khadir laayeen ñëpp a ko bok man mi dana ja tew and ko serigne Ousseynou mu bax mi nga xamne ñep xam nañ ko Cheikh Ibrahima Niass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 sadid lisani nawwir janani shaffi amani wazid bara'i barke borom tuba, mbok yi setan Nihma Nazir TV online mo xam ci Facebook bi mo xam ci YouTube bi mo xam fenn ci réseaux sociaux yi fenn ko ci setan rek no ngi len di nuyu di len jox way wi ngeen yallol di ñaan ci barke koor gi sa borom nangul na sunuy jaamu yalla te jéggal nu sunuy rëccu rëccu te fulal nu sunuy tuyaaba te jéggal nu sunuy bàkkaar barkeb sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam barkeb alquran ji wàccoon ci moom te wàccoon ci weer wii noo ngi ziyaare itam sunu wëllëre sunu xarit sunu soppe sunu jëwrin ci dëkk bi waaye ci yoon wi di alxaaji maam Cerno Mbuub mu baax mii nga xam ni li mu yëkkati rek doyoon na sëkk daanaka jëruloon ñu ci te genn wax ndax li mu ubbee jataay bi dafa dafa firndeel li nu bëgg a waxtaane muy xasida Serigne Touba yi nga xam ni taggu ci kudul sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu tija xasida ak mawaahibu naafiya fii madaihi saafiya da nga ciy xamee ni sëriñ bi léppam tawhid la léppam yàlla la waaye bu yàlla jàllee itam sayyiduna muhammad rek la jox boppam dafa waxoon ni allahu rabbi zahiran wa batina xaysu akunu rahilan awqatina man yàlla képp laa jël def ko muy sama buur def ko muy sama borom ak fu ma mën a nekk nag ak lu ma fa mën a wéet ak lu ma fa mën a du tax ma saalit ba jaawale yàlla ak kenn waaye waxoon ni itam yow yàlla ginnaaw ba ma la defee nga yàlla ba noppi sama digganteeg yow bu ci doxalee kenn ku dul sayyiduna muhammad mm-hmm. laa tajaalanna bayni wa baynaka abad waasitatan ci wal mukhaddami samat sama ak yow bul fi doxale kenn ku dul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dal di ko gees yam ci mom rasulillah nako yow de la def ngay sama jeewrin ci tol bi yaay sama lay ki sama digganteeg ak noni waye aljana sax bëgguma ko ndax yow suma la gisee jurut may dugg àjjana muhammadun wasilati wa jannati an al aadi waaye wal aza wa jannati yow dal la def ngay sama wasila yow la def ngay sama défense ki sama digganteek noon yi waaye yow laa defit nga ngay sama défense ki lor yi ma war a lor ñoom ñoom noon yi waaye bëgguma àjjana ndax yow su ma la gisee jërul may dugg àjjana kon kooki doy na rek xasida gi ñu doon jàng léegi muy Mawâhibou Nâfi'a mooy aji maye ji kii maye nga xam ne mooy borom njariñ yi almawahib mooy jamo pluriel ay may ku koy maye mu ne an naafiya sëñ Tuubaa néewut may maye moo tax lii ko murit yi jiñ moom sëñ Tuubaa moo koy waxal boppam di ko leeral daf ni kii maye du man kan la mu ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala an naafiu mooy aji jariñe ji waaye nag ci ma koy maye lu mu doon mu ne du ma ko may nag ci ndax maa ngi leen di wax ni li ma am laata ma koy am sonn naa nabbahtukum maan ala kaddin bada lii xabla an araridan mu abbida coono yim daj nag bokk na ca moy li li yalla maye mi ngi ko koy maye ki tag sayyiduna Muhammad Fi madahis saafii maa ngi koy amé ki tag ji ajram mu ci ki nga xamni mom kep man ram mu ramm ëllëg yamal xaamatul ram xetali ñi sigil jamni, ñi sagal jamni ñi moom Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. bamuy ba xam nga lu mu tàmbale yaw yàlla yow buur bi mom bi mom jaam ñi mi yilif ñepp sañal ñepp ta ken sañul la dara yow yàlla de maa ngi lay ñaan yow mu mi nga julli ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allahumma yaa akramu salli ala sayyidina muhammad kan mooy muhammad mu ne alfaatihi lima uxliqa mboolem buntu bu tëjee woon moo ko tijji mboolem li fi yàq woon moo ko defaraat mboolem li fi lëndëm moon moo ko bim ñewogul jamono dara baxut mom sayyiduna muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku jekku sa morom ray dañu daan jël dom ju jigen diko ko te deewut dañu daan jël dom ju góor ren di ko ci sasi ngir bañ bu ëllegé mu ami soxna ami dom yuzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim yàlla waxat ci alquran ni wa izal mawudatu suilat bi ay zanbin khubilat kon kiñu yàlla xewale moy sayyiduna muhammad mo tigi li fi tejewon motax yàlla wax ci alquran ni laqad man أن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ما تقول في تجوان رك ماما الفاتح لما أخلقه والقاتم لما سبقه ني في جارو نيب نيب داني في جارون رك دي جونجو واجي waaye waa ji moo tëj ub làmb moom sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo tax Isa bi mu fi waaj a jóge toll ci fanweeri at ak ñett moom sayyiduna Isa doomi Maryam daf ni wa mubassiran bi rasulin yakti min baadiya ismahu ahmadu ca suratu safi kon wal xaatimi lama sabaqa naasiril xaq bil xaqi mhm. mooy koo xam ci biir xasida gi sax sëñ Tuubaa da ko ciy ñi jëm ci yàlla moy xop ñi jublu saytane muskin li shakin waye bisrun li bakin muzghin li hakin wazin dai bo deme ci muxaddimaat daf lay wax ni moy bégal mboolem ku bëgg yàlla jëm ci yàlla waye moy moy xop mboolem ko xamni ab yéfer nga bu féttër lu jëm ci iblis bashirun liman lillahi bil haqq yusinu waye nazirun liman bil kufri wasirku yu'linu kon xasida la gog bu nu ci firi ko rek doy na nga xam ni Serigne Touba léppam Seydunaa Muhammad la waaye xam nga lu tax mu tuddee ko mawahib ay may la mooy dalay leer ni lii jag lépp sunu borom la keneen mënu ko am ku sañ Sëñ Touba xam nga ko waral alxaaji Ousseynou jëlu xasida bind ko ba mu jeex te ki ki tax ngay wax xasida gi tuddoo ci aw turam xasida gi Sëñ Touba way na ko ba mu jeex te ki muy waxal moom tudd ci aw turam da koy junj rek. zaakal muniiru mm-hmm. zaakal basiiru ko usiiru bi sa sanaa'i noonu la ko waxuwa nangam rek loxoo nangam lakka nangam ba mu demee ba xam ne moom kii muy way daa am ñu ko toppoon sonn ci moom daj lu ne ci moom bàyyi woon seeni soxna seeni doom te mun leen a ñàkk tudd te yonent bi nee woon na ko soo may woyta woyoo leen dafay mel ni cin lu safut xorom mm-hmm. ayaa xaadimal muxtaari laa sax sa saxbahu fa may yansahum fal matu matu mu xattawu kon faw mu tudd leen te jaayante woon na ci xasida gi ni lii ay may la yàllaa ma ko may waruma cee tudd aw turu kenn kon bu tuddee yonent bi te jaarul ci aw turam bëgg tudd saxaaba yi bëgg jaar ci seen tur way wa day ruube mm-hmm. waaye xoolal ko yàlla may alal atiqi baabi tariqi aqil wusuuqi kulli yi Aboubacar Siddiq daal di daal daal di féete ne moom. alal wasiiri. sayfil basiiri. ridal qadiiri. mujril xadaa i omar daal di gis boppam ala diya i aqil i xeeru rida i minzil baqa yi kooku saydina ousmane moo ko moom nga xam ne man ngaa jàpp ñeenti saxaaba yëpp bañ nappee xam ga lu mu ko tëjee ala saxaaba ndax day bañ bu ñeent ña jàllee am ñeneen ñu gis ñu gisul ci seen bopp te Zubayr ibnu Awaam ci la bokk ta ibnu Zubayr ci la bokk Abdurahman ibnu Awf ci la bokk Meqdaat ci la bokk Xaalid ibnu Walid ci la bokk nga xam ni dañoo bari mënee su leen lim mu tënk leen ci ala saxaaba zawil ijaaba yawmal kaaba rida sana yi xam nga lu mu leen lu mu leen bàkke ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ toppoon rasulillah yi xuus ci xaaxaam yi jéggi ci jéggi ci dëgg yi dox ci lëndëm gi ba gis projecteur bi taal ko ñëpp ñi liw diine ñëpp mën a jaaru loolu mooy kullum su jaaw logot ti baaw logot ti faaw waxta rifay am na faneen fu mu leen tuddee gaynde digg njolloor mm-hmm. ñooy gaynde ci digg njolloor usudun alal adai, masabihu fi duja ñom ñoo taal lamp yi lamp yi bam leen lëndëmee moy masabihu fi duja way wa kullun sujahun rahsa zil kufri yak saw kon khasida gogu buñ ci yamon rek doyna sekk ci nga xam may señ tuba waye mu tegat ci nak khasida go xamni khasida gu daw yaram la khasida gu ranke la señ bi da masa ñew ndiarim ci bir wer koor baba ndiarim neex na lol ndax mag ñaa nga fa ndog yay tege sikar saak yëpp sëriñ bi génn yam ci ñuy jàng xasida gi yaa xayra dayfin mooy li alaaji maam Cerno doon jàng léegi sëriñ bi ne dama leen a bëgg a yee ci xasida gii de bi ma koy bind daan ne xasida gii de fi ma ko bindee ñaari yaa la woon mooy yaa xayra dayfin ak yaasal bu saaraati daan ne bii dama ko doon teeroo weer wi bii dama ko doon gunge weer wi daan ne waaye ñaari yaa yii yaa gi tàmbali ci weeru baraxlu ñu ne ma suba la ñuy woor ak yaa gi nga xam ni biñ ne suba la ñuy korite diggante bi gisuma fi lu cin di taal ba di ko mos way naa fi xasida gi waaye gisuma fi lu cin di taal ba di ko mos nga xam ne kon ci jamono ji met la ko way waaye ci biir xasida gi boo ko doon jàng doo ci yëg ni ke ko doon jàng mi ngi woon ci ay xat-xat déedéet ku tumurànke la woon waaye doo ko yëg mukk ci moom am na fu muy wax yàlla naan ko ba rabbana inni musaafirun gharib وليس لغيرك هكنا قريب فقبل يرجع عن من سفر إن كان خيرا لي بغير سفر يلا ما يجي أبو ياسر لا نك تدق ال كن فيكم في كن يتلوما ما ورا كور أي كور يمت نك كتوم رانك وياك روما في كن نكود ليونا موسيقى سالي بن يوم خم قولي ميوخ يلا ياو يلا سما صبي بي ياو يلا سما خارج بي جاكسنا مويلان كور سنجوبا كور خارج تم لقدان وح اللهم inna habibi wa Khalili ramadan qad istaghalla moy koor go xamne bisub al altine la amone moy yawmal isnaini bisub altine la koor gogu tambale won mom Serigne Touba nak fonkam koor yomb na xam bu koor masaanu jub si daf dan soppi lu keur gi bokkul ak nit ñi niñ daan Serigne Touba koor ba koor la defar lu keur koor ba koor ngir bëgg wané ni ne koor mooy weeram koor ba koor lañ daan dajj lu keesi njaareem yi di defarat. Togu, yi waye di defarat kasi di defarat bagage xam nga dum ko dan ada wati ramadan moy bagage weeru koor serigne bi daf dan waktu, ay waxtu da am waxtu yo xam dafa am waxtu yu dan genn am jamono yu ko dan gis am jamono yu dan daan gis ba mu dess weeru koor weeru koor bu bunt buntu boy gis ab bëkk nek amut ben buntu buy teje amut buntu yep daf dan këllépp di tijjeeku forum bu di sen serigne touba jalal dak jamal jeewur ko ñaari baat yo wax mu muñ xol bi sedd lol ndax koor daf ko bëggoon lool ba naari gannaar yi daan ñew ci mom dañ daan bayyi ba weeru koor ñu daw ñew lo ci mom ndax nenañ loko laaj mu jox lako ci bi weeru koor mom Serigne Touba bëggoon weeru koor fonkon ko ba baraxlu lako daan waajal baraxlu rajab la daan ñëkke di préparer weeru koor baraxlu dugg ci koor ilayka ci bir xasida giñ ñu jang nak la wax ilayka xat fi sa'bana an rajabin mujaddidan fika ka li bi tarkidaj rajab lay commencé dal ci saabaan ramadan ñew mu and ak mom di wor mo tax liko yalla may lepp ci weeru koor la ko may nak nag di wi ñuy wax wérdul maqoos nga xamni mo lay bolé ci mourid gi nga xamni ne bo dem dañ nan la ndax japp nga wérd meng ko amé ci bir weeru koor gisé gim gisé ak rasulullahi fii ci darul qudus meng ko amé ci fukki fan yu mujj ci bir weeru koor moko jox ndigalal genn xarit yow ma sabti samina asar liqmatul muqtari fi sayri safar lu ne amna ko ci bir weeru koor mom seigne touba waye mu don ko xam dafa dan duñu tawhid ba nit musuko meuna jam ci dara wéru koor sa masa ma masa feñ ci wéru baraxlu bi mu genn wo mak ñu leen gis ngeen sama weer wi ñu nako ko waa seen nañ ko mu ne yalla nañ ci dugg ak jam mag ñi ni amin mu ne way dama ci bëgg waxtaan ak yeen tek, mag ñi ni tek mu ne yàlla dafee yàlla daa santaane liggéey suba moy wéru koor jaamu yalla ta fekk fi sama liggéey bu ma daan santane man moy liggéey yi kër gi ma bëgg nak ci yeen ma waxtaan ak yeen ko xamne ne na boole ñaar yi moy li may liggéeylu ak jaamu yalla gi baax na ku ko def am ñaari tiyaba ko xamni nak muno boole ñaar yi ma fi sama liggéey bi sa dem jaamu yalla xana xanaa kooku wax na fi mu de bokul ak li xew legi ko xamni munta boole ñaar yi bayil ma fi lima ma lay liggéeyloo man señ touba ta dem jaamu ji yalla am ca kenn ca mag ña ni ko mm-hmm. man de munu munumaa wor señ bi ne tek ab nako anal la tere wor munako mm-hmm. mbacke damay ragal suma woré ba am luma ndogo damay ragal wor ma dog jot duma gis khalis wala luma wara war doge seug mi ne ko accam xam nga sëñ Tuubaa daawut lu amul njariñ daawut diglu lu amul njariñ lam an malam yufidi. yu fiiti hmm. sëñ Tuubaa musa diglu lu amul njariñ sëñ bi ne ko accam buma xamone lool rek ngay wax day duma la diglu sax ba dila la tontu daan tekk ab dir ni dégg ngeen li wax ma ngi ne ko mbacke dégg nan ko ne sa morom mum jam kep bo ba ngon jot mu fay la waxuma la ko suñu borom dan ni jamul yalla tabay tapalay won len ginaaw kon koku xamoon na fi ko koor fi ko koor tolloon ci la way xasida gi xam nga lu mu wax koor yow mii gën ji gan nga xam ni ganam la dikkal ci mbégte teeru naa la dalal naa la tatagal naa la jox naa la palaas yi gën a foor yaa xayra day firata bil bisri wal madadi mhm. ahlan wa sahlan wa tarxiban بلا حدد يا خير بنتا بالبسر والمدد أهلا وسهلا وتر حيبا بلا حدد لا ضيفا كريما زاهرا أبدا مكرما بخرا تحاتي والسددي معظما عند ربي لا شريك له وحند أهل التقى والحلم والرسد لجت ما هي أوزار وخالية أوزار وخالية أوتار وتار أحيار من الخلد وسافدا كل سيطان بما معه وملقفا لسوي الإحسان بالسفد ومسحبا كل أحسان نضيف بها في الدهر أفئدة يا مسحب النكد وسائدا كل حام ما نفوز به من جود محن كريم نافع سيدي يا ذنب كريم يا سهل رب الكريم يا سهل رب الكريم فيك جال لنا ليلة الخدر سات الفضل والرقد يا سخر رب كريم فيك جادلنا بليلة الخدر سات الفضل والرقد يا سخر رب كريم فيك جادلنا فيك جادلنا فيك جادلنا بالليلة الخضر ذا til وارقدي دفلني xadi def leen ni ñu kon dafa mel ni eh, alxaaji Ousseynou mm-hmm. li ñu bëggoon a la alxaaji moy sëñ touba ni mu dan tero wéru koor ay xasida yu bari nak la ci talif gis nga sëriñ bi ku yéme la bu wéru koor masaana jub si day bàyyi lim daan lim dan way ndax da am ay xéti wayin way dafa am ñet ñetti ñeenti xeet dafa am mathu am nasmu am nasr am sajan bi khidmatil mustafa wala bi hurmatil mustafa man sirtu qaadimahu bin nasmi wan nasri sajan summa mizana لا اله الا الله wayin wane sëñ Tuubaa way na ko nag am na nasr am na sadian am na misaan am na mat moo tax léppam da ko daan da ko daan diviser àgg na ba ci wax ni at mi dama koy xaaj sax yii ma def ko ay salaat yii ma def ko ay am daax salaatu sitta bi mat xi sitta taatihi batta maati say waaye bu weeru koor masaanu jub si nag day soppi da seen xasida yi ramadaana lii la koy tuddee sëhu ramadaana ramadan ramadan ama nangam yooyu la koy tuddee ba weeru koor jeex xasida gu mu wayete ramadan la koy tënkee am na xasida goog daa jël alxuraan firi ko ca rek alxuraan ñett yi la tënkee ñetti aay yi la dajale wax ci weeru koor génnaat yi ci def siyaam la koy wax nga xam ne tur ramadan ji carrément ramadan ci suuratul baqara la ko wax yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun benn aaya أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونها طعاما في طعام مساكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون baat bi daal di ñëw nag sëhru ramadaana foofu la leer nañ fudul foofu doo ko déggaat ci alxuraan baqara ba naa si ramadan du ñëwaat foofu la ko tudd ci alxuraan sëhru ramadaana lazi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda walfurqaan fa man sayida minkum sahra فليصمكوا ومن كان منكم ماردا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكملوا العده ولا تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك دور نيو واي غيسغا بي سيرن بي نامي واي خسي دا خمو لوم واخ فاز الذين حافظوا على الصيام سكور به اغلق باب للايام يرون افضل فطور في القبور وفي القيامه من المخن الكبير sëñ Tuubaa dafa wax ni texe na kan moo texe mu ne ki wattu weer wi yëpp ba mu jeex weeru koor sàmm ko ci woor ci ay cëram waaye woor ci ñàkk lekk ak naan ba jant bi so ñu ne ko weer weeru lan la mu ne bi bii uxliqa baabun lil iyaam mooy weer wi nga xam ni ci la ñuy tëj bunti sawaree waaye ci la ñuy tëj ci lañuy ñuy tëji bunti aljana ya dat ni ñi woor day danañ gis gën ji xéewal fii mooy ndogu xam nga boo bu doggatee rek ba nga gis yi ñu sant juuf ak seen xol day sedd mooy yaraw na afdala futurin waaye fil xubuur nag moo ci raw bu ñu leen muus bàmmeel la ñuy xam njariñal koor waaye nag wafil xiyaamati buñ demee yowal xiyaam xam nga lu ñuy wax ay na sa imuna ana woorkat yi duxulu duxuluha bi salaamin aminin duggee leen nu mu leen neexe kon waaye na nu ne weeru koor bi mu ñëw ba ci yaaxeere day fin nag daf ko ne yow gën ji weer wi dikkal nooy dikkee mu ne ko dikkal ci mbégte ñu dalal la teeru la musoo dañ nag di weeru tedd musoo dañ di weeru màgg laasil tax mooy musoo dañ nekkul weer woo xam ne day ñëw ren ñu ne weeru daa metti weeru nangam la décembre fi ñu fekk wala janvier fi mu ñu fekk amut loolu damay wax ne weeru koor li ko màggal da cee bokk Moustapha sallallahu alayhi wa sallam xanaa xamoo ne woor yàgg na am de. Adama woor na. yonent yàlla Adama woor na lan la woor. bis bi mu ñëwee moom ci kaw suuf di wëranteeg xawaa ba ñu gisante dañ doon wax seen baat boobu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna min alxaasirin yàlla jéggal leen dañ koo woor ñoom moo tax kama kutiba ala lasina min xablikum gaa yi dañ daan woor de moo tax yàlla ni comme ñi fi jiitu woon dañ daan woore mais wooru benn fan la woor Seydina Nuux woor na ci lan fulkul masuun gaaram googee mu defaroon parce que alfa sanatin illaa xamsina aman la woote na junni at yu manke juróom fuk ken wuy siwu ko lu mat ludul dul juróom-ñett fukki nit moy wo nit ñi rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahaaran falam yazidhum du'a'iya illa firara wa inni kullama daawtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghfaru siyabahum wasarru wastakbaru istikbara summa inni ba ba nuh jeex mu inna salan nuhan lépp yàlla da ci leral nuuxoon ak nitam fan la mujjé was naayil fulka bi ayunina defaral ak gal mu defar gal ga gañu commencé retaan waye bi mu déparé bi gal ga téré gëmut ni da teer ñak gëm gogi da ci woral yalla ñetti fan kon koor yag na am Seydina Isa daan na wor waye nak nim mu daan wooree ak ñi nuy woyé bokku ñu motax kama kutiba alal qablikum koku mo mujjé wor waye xam nga nu mu daan da ran événement day ñew mu ni duma lek yap ci weer wi wala duma lek yap ñetti weer ayna sama bop jën wala aaya sa sax période bi aaya naa sama bopp nangam lolu moy wor motax seigne juma jumaa dafay wax ni wor moy nga wor ci lu bon fena mom da nan wor waye lim dan woré moy aaya bopam nangam yi ci dess ayut ci mom légui nak ñun biñu yalla yàlla digal koor gi gën ci koor yi mm-hmm. mu boole ko nak ki gën ci mindee fi nga xamni kuy su jot la gën kuy kàbbar moo la gën ko sa jëm kaw sa tànk jëm suuf moo la gën muhammadun xayru man yamsi ala qadamin muhammadun xayru man lillahi xat sajada mu jëlaat téere bi gën ki téere yi jox ko naa la ñetti téere la alquran ñetti faas la kitaabun marquumun kitaabun mastuurun kitaabun maknuunun moo tax yàlla wax ni innahu la qur'aanun karimin fii kitaabin maknuunun laa yamassuhu illa almutahharuun tanzilum min rabbil alamin sëñ Tuubaa ni kitaabun karimun min karimin mukarrimin kufiitu bihil aadaa wa zanba wa shirka jàng ko mooy sama trésor mooy sama daraja mooy sama yëkkatiku ci laa amee dëgg ci la amee lépp lu ma war a am ci laa fegoog samay noonu xiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni la dal laaki sa sidqi daa wax ni su ma gëlëmoon sax bi ma jàppee alxuraan laa gindiku tokuma yakari boko jappe da ngay gintuku bihi zala ghammi hina amsaktu hudan sa ugdi bihi nafsi wa ugdi bihi sahba dan ku beug taxe nak nag na nga jàng alquran fa tuuba li abdin llaha rabbuhu bi tartili quranin hakimin yaqi zanba wala yaqi karba dan ne masikan bil kitabi maska daririn bi yadil khaidil basiril muayni am na faneen fu mu ni fa innahu l urwatul wusqa fa mumsikuhu gadan mawla bi wala bi kon moy deug deug jàpp alquran moy jàpp ci li gëna wër yàlla waccé ko ci bir wër koor wi jox ko sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wasallam moy wër wi gën ci wër yi ma waral sëñ tubaa fonkon ko waye mu waccé wacc na guddi gi gën ci guddi moy mooy laylatul qadri yàlla wax na ci surtout doxaan ni inna anzalnaaku fi laylatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim waxaat ni inna anzalnaaku fi laylatil qadr وما دراك ما ليلة القدر ليلة القدر نانا بو غيسه مو تودو كو نيات يون سي بن سي بن سار بي موي دا بغي نيو خامني ويرو كور فان ويري فان لا ان انزلنا في ليلة القدر بن ليلة القدر بو نك دي فكي فان وما دراك ما ليلة القدر نيار ليلة القدر نيار فكي فان ليلة القدر فان ويري فان خير من الف سكر يا تنزل الملائكه والروح فيك باذن ربك من كل امر سلام حتى ما الليل الفجر ما تخ سنجوباني اني احبك يا سكر الصيام بلا خسين في أغلن وتركيبا بلا عدل وعنا فنن فمني بليلة الخدري ذات الفضل والرصدي ولا والرقدي كن لولا رك بينا أنت بارانتيس تكي نيرون بغا وقتاني ولا كيغا خمني موني في دجالي موي سيرين توبا نو خمني لبم ويرو كور لا waye nu xamni leppam yalla borom subhanahu wa ta'ala lako jox waye nu xamni leppamit sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lako jox ngeen def lu rafet mooy di waajal ab bis di ko taxawal on the 16 muy le 16 avril fukki fan ak juróom-benn ci weer wii ñu nekk di tolloog samedi ngeen di ko def foofu ca boobu zone ba mu jaral leen ngeen di def wàccaay wi waaye ngeen tuddee ko ay guddi yi Seydina Muhammad ngeen jël ca génn guddi ne xaaral nu jagleel ke ku nga xam ni weeram yi. ak atam yi bisam yi léppam da koo joxoon sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sohoori wa ayyaami xadan lii sa waakidun am na faneen fu mu ni waa awaami xadan xayra taaxatin liman bi tawali fii ka daa man bi kay yoxnaa mhm. kok nga xam ni amul woon jot amul woon temps léppam at mu ne day calculer ne at mi lii laa koy yor bu dee lu see ma koy yokk ala man alayya wala su sadiya waaye lahu kulla amin gada ya madiya lahu alayya li wajhillahi daynu sanan waaye mustaxsanin kulla amin yow ma yoxtaaru amul woon jot ci lenn yaddi taquttu wa lisaani yatlu walay sa yanxu li janaabi xitlu moom bu lammiñ yo masaan bi tari alquran loxo yaa ngay bind musul am jot waxtoom yëpp da koo jël jagleel ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. juróom mbubb la daan sol par bis waaye daa woo ko xàmmee mm-hmm. ndax daa ji daan taq ci yére yi moo lay xamal mag ne daa changé yére mooy daa ji daan taq ci yére yi bu tis baaree duñ gisaat yére bu da ngay gis ni waxtu woo ko fekk moom sëñ Tuubaa a ngay bind bu nekkul di bidit booba ma nga yori mol lolou la sëñ Musaa Ka di wax bu ru ga dem aras mom xana warna na buraax mbaa mu war ci xeyso soo <laughs> talay la du côté dem ci pays diwaan ca passé ñu ñu sakal riyan yi lay naan <laughs> laqad abba miyaaku rijalu ghaiba kama massa saraban asala ghaiba borom tar bi la semmal nasaru bargan tabarak ma jangal ko saru furqan borom tar bi la nasaru bargan tabaraka ma jàngal ko saaru furxaan saaru mbarga borom tabaraka ma ko saaru ma jàngal ko saaru Furqaan saru mbargaan saru mbargaan lakk ma jàngal ko xadim rasool borom taar bi la semmal saagal tabaraka ma jàngal ko saru furqaan ana soppay xaadim rasuululaay xadim rasulullah waaw waaw damay aaj ña fa teewoon waroon na nooram te jébbal la kurus yan yoroon di sabbaal ana soo bay siriñ fallu yoroon ni jaw waaw ci kun lay téléphone xel ma raw na defee nga dekkal toona isa waaw xel ma raw na xel ma raw na detee gën a leer lamp bun xaadim rasool ci kun lay téléphone xel ma raw na defee xolam baa gën a leer lampu jafal mees xel ma raw borom tuuba ci kun lay téléphone xel ma raw na leer lampu jafal mees ma raw naa xel ma raw naa xel ma raw naa xel ma raw jafal mees xaadim rasool ne na yal na nu nandal di jaay mamoon na ci baatin ne leen xaadim rasool ne na yal na nu nandal di jaay mamoon te nan xaal ñu ci baatin ne ma amiin di jaay maam moon ne leen ma amiin xam naa guddi na te naan wu yokk mar moom luñ ci am rek mu doy Euh, noo sante bu baax alhaji mam tiorno ci mbaxam rek ci la lii amé ndax mom lañu dalal mu yëgal nuko ngir nu ñew rek ndokkel ci ko ndax mom lu mu nek rek nun dañ cey nek li wax deug yalla ko nu xam rek xam nu ci mak mom ku nuy setan ci barab yu bari mbaa nga diglu xam nga ci ñu mu yëkkati di tag Muhammad nu di ko firi di ko mom mom. gam di ko ci ay guddi yu bare bare bare bari mu sunu wolere nu bokk lenn lu nu bëgg te ñaar ñu bokk benn teen nooy laxasu ay goj nga xam ne jëmmam mooy sama jëmm ak mbaaxam rek moo waral mu yaatal ñu ci daat ne buñ ci àggee rek bu ko defee lu jëm ca waxtaan wa nga def ko alaajo Seynu noo ngi lay sant bu baax ak sëñ Pape Seck waaye mu fekkoog nag ay xaritam woo ay wëllëreem ànd koog ñoom ndax kii toog di sëriñ Modou Gueye dafay ab loxo nday jooram nga xam ne foo ko gis rek gis ko buñ doon wax euh, ménager mooy koo xam ni tey boo ko bëggee jot moom ngay jot wala soo bëggee waxtaan ak moom moom ngay waxtaanal door koo jot kooku mooy sëñ Modou Guèye mii toog mm-hmm. nga ne tey boo soxla woon sëñ maam Thierno mii mm-hmm. bëgg ko yóbbu ci gàmm mm-hmm. wala soxla ko tey moom mii ngay jokkal moom ngay waxtaanal fu mu jëm nooy ànd guddeeg bëccëg suba ngoon léppam moom moo ko yor waaye nu fekk goog suñuy gan ñoo xam ni gan ñu ñàkk kiñaan ñaan lañ. gan ñu baax lañ ndax El Hadj Ousseynou dara gënta dara gënta riis koo xam ne li ngay def. mane na ko ni ko mane mbaa nu raw ni ko mane mm-hmm. ba noppi itam à travers le monde mu dem ci mm-hmm. di ko génnee mm-hmm. mbokkam xewle mu nango wàccee dara jaam ci suuf ànd ak moom bu ne salli wa salli mu geesu ko ne ko alal mu tammim dinaa la jàppale ba yëf yi baax ci ñàkk ñaan la bokk te sayidul xaw mi xaadimakum ki gën ci nit ñi mooy gën a dara jaam waaye sëñ xaasim Touré mu baax mii ba jaara buso wane wane nak wane na ko tey di lii ñuy def tey buñ ko ko joxoon. Mhm. da nga naan déedéet. maanaam tey saal bi danga nga dajale ay ndaanaan. kenn ku ne ci ñii ko ci joxoon rek da nga naan moom la. waaye tëriwut dana wàcce seen daraja ni bis bi bisub sëriñ maam Cerno la kon moom la ñuy àndal moom la ñu gunge sëñ xaasim noo ngi naan yàlla guddal safan mu fekkoog bàyyi Modou Koli xasaayit mi nga xam ni ci ginnaaw sëñ maam Cerno mii la nekkoon di léppam waaye muy ab jànkatu xasaayit bu mag moom itam di ko baax di ko bëgg lu baax fekkoog sëriñ Cheikh Dieng mais nga xam ni ku mën a jàng xasaayit la mm-hmm. moom itam wax dëgg yàlla di ku yaru waaye ànd ak sëñ maam Cerno mii ci liggéey bi fekk goog sëñ Alioune Faye mi nga xam ni mm-hmm. bërki démb la fi doon woote bis bu mag boo xam ni mm-hmm. wax dëgg yàlla mbooloo bu ndaje woon sax mënuñoo def bis bu toll noonu moom jëmmam képp mu woote ko dogg ci am ci pas-pas yaakaar ki sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa wallu ko ci muy bis bu mag boo xam ni histoire da koy marqué fii ci réewum Gàmbi ba noppee du ko fàtte mukk taarix da koy boole ci histoire u Gàmbi yàlla na ko yàlla taxawu yàlla na ko yàlla sàmm moom moo indi sëñ maam Thierno fii ci dëkk bi kon ku fi maam Thierno am rek ginnaaw yàlla mm-hmm. sëñ Aline Faye mi moom moo tax yàlla na yàlla dolli ko jàmm waaye mu feggoog Cheikh Ibrahima Sarr Guèye Mële Cheikh Ibrahima mii nga xam ni ñëpp a miin am njàngam ñëpp bëgg am njàngam ñëpp a ko sopp feneen maam Thierno mii rek dafay béggee sëñ sëñ Ibrahima Sarr mi day béggee am njàngam waaye moom it mu woyof woyof gu toll ni bi maam Thierno jàng moo toog fii ma toog nii di ko moo xam ni bu fi nekkul da nga naan li mënutoon a ñàkk feggoog sëriñ Sidi taw feex mais nga xam ni moo jiite daayira Kendal sëñ Touba bokk ca ña ko jiite ñu yabal ko mu bokk ca délégation ba ñëw moom itam sunu mbokki soxna yi toog nga xam ne ñoom ñëpp a ñëw soxna yaa may jaw euh, moom itam bàyyi ko fu sori diko bax diko bëgg lu bax sopp sëñ mam Cerno mi da ko bëgg lool te jëm yalla gi tax ba tax bi bis bi amé mu bàyyi yiteem yépp ñëwit ko ak mom ak soxna ummi cham mi mom itam bàyyi koo fu sori ñëw ngir bis bi ah, soxna gañ sire mom itam bàyyi fu sori ndax bis bi borom barab bi ñu ne nga xamni moy suñu yaay di yaay mam Cerno ya roqi job nga xamni ne ba légui léegi wut sa yu duggé rek génné addiya joxé saa yu duggee rek génnaat di joxe te yàlla xam ne ni mënoo xam fu mu bokk dugg nga ci néeg bi fekk fi foto fotob cheikh al islam yi cheikh ibrahima ñas alkawlaxi yu nga xool sa càmmoñ fekk fi cheikh abdou xaadir mbàkke jiili borom baxdaat nga xool sa ndeyjoor fekk fa sëñ kër si mu mag ma nga xam ne moo ne woon ku ma woo ci photo ma wuy la ci photo su ma rusul woon sama baay bu baax ba ku jàkkaarloog man ni jàkk sama photo loo ma wax boo ko sàkkoo ma may la ko man sëñ babacar si mu mag mi yàlla dogal na ne mu darale leen moo lay wan ni kii kat ku ñàkk ki ñaan la mm. yàlla na ko yàlla fay moom yaa roqi Jóob mm. soxna mama Jóob nag mooy sunu soxna mooy soxnas maam Cerno mii mooy sunu soxna jig nu lool te jigadi wunu <coughs> bi mu duggee ci ñun ba léegi danoo yokk wax dëgg yàlla sunuy mbir gën a baax nag mm. muy ku yaatu ku yaatal di soxnas jàngkat ku ñëw ci kër gi mu yaatal la wax dëgg yàlla teral la Euh, ku ku tabe la ku bëgg lu baax la ku sagal boroom këram la itam waaye ku fonki mbokki boroom këram ak xaritu borom këram la noo koy sant di ko gërëm bi mu yëgee bis bi moom moo jël addiyam mhm. jël ñaqam wut ay teraangaam defar ay berdeem indi ko joxe ci bis bi ngir sagale ko borom këram mhm. noo ngi ñaan yàlla guddal fanam wéral ay cëram Cheikh Ibrahima Faye sunu doom mbay ji toog mhm. noo ngi koy ñaanal gudd fan sëñ Pape sekk mu baax mii nga xam ni dafa bëgg maam Thierno bëgg lu baax moom dafa bëgg ñëpp rek bëgg lu baax waaye bëgg maam Cerno ba nga xam ni euh, ñoom ñaar ñoo bokk air bi ñuy jàng ñu bokk kenn ku ñuy roy bokk jënd jëwrin fi ne lii sëñ maam Cerno yi def noonu la koy defee moom waaye daa wàccee boppam wàccee dara jam jël léppam jox ko sëñ maam Cerno boo gisee may sant lii nag mooy daanu dajut suuf mm-hmm. te saabu mun ta fóot boppam docteur mënut a faj boppam mm-hmm. te kii maay moom mooy man mm-hmm. ma santal ko ay mbokkam katt nu yàlla borom bi subhaanahu wa taala xanaa alaaji Ousseynou yëf yi tabaarakàlla incha allahu taala jërëjëf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 ba samedi rek inshallah rabbi bo noppee ñu sikar inshallah ndax fu ñu wotal señ touba mam Cheikh Rafaala nga ne toog di xaar deug la ndax mom moy babul deug la bu ñu waxtaan wi jeex ñu tejé ko sikar amu ben problème sag Cheikh Ibra daal di ko defaale ak ñaan kon bismillah nga tatagal señ mam Cheikh euh, ma sha allah ñi ngi santat yalla benen yoon ci tew bi nga xamne mom lañ fi tew nga xamne tewuñ fi ngir dara lu dul ne waxtaane walu yàlla yu baax yi te wax nañ ne ànd zikri saalihiina tatanazalu rahmat fi ñuy tuddee nit ñu baax ñi yërmande yàlla dafay wàcc yellante woon ñun ñëpp ñu mun a xool yërmande yàlla bi ñu muy wàccee macha bañ laa yéen ak imaam Junayd nag fi ñuy tuddee nit ñu baax ñi yërmande yàlla dafay wàcc naka nag suñuy tuddee yàlla lan mooy wàcc dafa daanu ba xom macha allah kon nag sant yàlla bu baax ci kii nga xam ne tey moom lañ doon waxtaanee mooy suñ maam Sëriñ Tuuba radiallahu anhu nga xam ne comme ni ma ko waxee ci suma bidaay rek lépp lu mu am tëdd nelaw mayit ko ko tëdd nelaw mayit ko ko góorgóorlu gom boppam gom lum doon gom mooy kan tey alhamdulilah ci la amee tey lépp lu mu am kon nag loolu Euh, jàngale la ci képp koo xam ne rek bëgg nga lu baax képp koo xam ne bëgg nga lu baax nekk na ci ay tëdd nga koy amee nekk na ci ay nelaw nga koy amee waaye nag jihaadal borom bi subhaanahu wa taala topp ci yoonu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax te ñaanal ko mooy ñaanal suñ bopp ndax wàllu yàlla yi ñoom dégg nga duñ dee dégg nga de loolu déggin la wala yàlla yi lépp loo xam ne moom nga leen defal loolu dafay ñëwaat ci yow. Mm-hmm. foog naa ne yéen loolu yéen a mën ci gën a xam dara sax amul dara loo xam ne moom ngay jël defal ko wàllu yàlla lu dul ne loolu dafay dellusiwaat ci yow kon nag ñu ngi ñaan yàlla yenn yàlla yokk seen i leer ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne. moom lañ toogoon fii tey moom itam di ko tudd mm-hmm. yenentu boobu sallallahu alayhi wa sallam lépp lu yàlla bind rek yàlla nga ko amee ci leeram gi nga xam ne ba mooy waxtaan ak jaabir ne ko ne yow jaabir ndax xam nga man may kan mm-hmm. ndax xam nga man may kan mm-hmm. jaabir ne ko déet yow yenentu yow yaa ma gën a xam yow yaay kan mm-hmm. yenentu bi sallallahu alayhi wa mu ne ne man may ki nga xam ne lépp lu yàlla amal rek mu ngi ko amalee ci suma leer gi te suma leer gi moom la yàlla njëkk bind sallallahu alayhi wa sallam kon kooku noonu comme ni ko sëriñ maam Corno waxee yenentu bi alayhi salaatu wasalaam laata muy ñëw jafe-jafe borna ci àddina bi xexante bi borna ci àddina bi suuf dégg nga bi borna ci àddina bi kenn xamewul lu kenn xamewul lu dagan way bi yaronte bu alayhi salatu wassalam ñewé ci la lépp leer kon nak amul ben werante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ko yàlla wax ci alquran deug la wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bashiran wa nadhiran deug deug ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi gërëmaat maam na beneen yoon ci accept bii nga xam ne tey moom la fi accept ndax su ko neexoon dégg de mu joxe ngànt waaye dafa loolu daf ci ànd sawar ànd ceeg mbëggeel ànd ceeg dogu waaye tamit ànd ceeg cofeel li muy tegteel tegtalewu dara lu dul ne ñun ñëpp benn lañ benn lañ te diine lislaam tey jafe-jafe yi nga xam ne tey ci lañ nekk dara àndewut ñu ko lu dul ne tafaruq yu bëri yi waaye bu fekkonte ne tey ñun ñëpp dañoo dégg ne bokk luñ gëm bokk kuñ jàpp bokk kuñ xarmal dégg nga fuñ suufalee suñ mbokk ñu jóg ñun ñëpp jàppale ko ndekoon tey jafe-jafe yëpp tey jeex na ci àddina bi mm-hmm. kon nag Seydi Maam Cerno moom mu ci loolu dégg na yoonu baax ñi yoonu mag ñu baax ñi dégg-dégg ñu ngi koy ndokkeel ci loolu sang bi macha allah yow tamit mm-hmm. ci xam-xam bu leer bi mm-hmm. waaye tamit ci waxtaanee dégg nga bindu mag ñu Serigne Touba radiyallahu anhu dëgg-dëgg loolu tamit lu am solo la wax dëgg yàlla li nga fi wax kenn mënoo koo dajji wax dëgg yàlla wax nga ñu tamit ne xamal nga ñu ci sa biir waxtaan ne Serigne Touba radiyallahu anhu ku fonkoon or la waaw tey nag leeral nga ko ci jamono joo xam ne jamono ju ko soxla la dégg ndax kër goo dem rek am na fa ñoo xam ne lu yàlla xam nangam yaa ngi dégg waaye leeral nga ne Serigne Touba la jullit xaqan la jullit gannaaw boo waxee ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah lu ci tegu iqaami sola mm-hmm. dégg nga doon jullit lu ñu ne da wax ñaari baati seede yii mooy ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dégg nga wax loolu gannaaw loolu tamit nag iqaami sola nga taxawal julli mënoo nekk jullit mukk te sa jullit mënta wér mukk lu dul ne da doon koo xam ne da taxawal julli dégg nga jullit bañ ko laajee yonent bi sallallahu wa sallam mu ne koo xam mooy koo xam ne kuy julli kuy julli jullit nga ku dul julli di jullit waaw waxuñ nag dàq fee julli dàq fee jaamu yàlla waaye fi la fekk yaa ngi lor sa mbokk jullit ci sa làmmañ ci sa loxo ba tey ñëw nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dafay def ndàngam lépp waaye daal maal asaf dafay tooñ mbokk jullitam ci làmmañam ak ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko du jullit kon nga dégg ci képp koo xam ne tamit da ngay julli lor sa mbokk dégg nga ci sa làmmiñ ci sa lii ba tey sa julli des na comprendre nga bi loolu passé iqaami sola lu ci tegu ita i zakka dégg nga asaka sawmi ramadan mu ñëw wa hajjil bayti liman istataa ilayhi sabila kon sëriñ bi ci li nga xam ne ci la taxawoon mhm. mooy ci weeru koor mhm. nettali nettali nga fi sànq mhm. ci liggéey bi nga xam ne moom la bëggoon oote ci ne lii yàllaa ñu ko digal lii maa ko digle waajo tontu ci lan tontu tamit ñun ñëpp dégg nañ ko jartu jaaraat kon loolu su fekkente ne am na lu mooy tegtal tegtalewut dara ne lu dul ne sëriñ bi ci yoonu lislaam la nekkoon lu yàlla bëgg la nekkoon lu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëggoon ci loolu la nekkoon dégg dégg ci loolu ci la yar ay njabootam ci la yar ay taalibeem kon nag yoon bi yoonu jaamu yàlla la yoonu or la yoonu lépp la kon nag Seydi Maam Thierno ñu ngi lay gërëmaat beneen yoon di la ndokkeel beneen yoon di la ñaanal yàlla beneen yoon yal na yàlla yokk sa fan yokk fan képp ko fi teew ci barke yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke weer bu màgg bii nga xam ne mooy weeru koor nga xam ne ci lañ wàcce alquran dégg nga de ay may yu bëri bëri xew-xew yu bëri ci lislaam ci weer koor la xew kon nag loolu sant yàlla la bu baax kon nag dañ lay dellowaat kàddu rek mhm. su ko defee nga xool noo ko gërëmee rek noo ko defee rek mhm. gërëm nañ incha allah ñu ngi gërëm tamit képp koo xam ne yaa ngi topp channel bi di ko seetaan ak foo mën a nekk ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay gërëm di wax ne suñu xarit moom lañ seet si mhm. ak ay wëlërëm Cheikh Maam corno Mbuub di taggukatu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nekk jawrin dégg nga ci yoonu Serigne Touba radiyallahu anhu ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla taxawu ko yal na yàlla sàmm ko yal yàlla aar ko bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jox ñëpp nag dig daje on the 16 avril. incha allah xam nga tey sëñ bi. Mm-hmm. ñun ñoo war a jàppante. wax ñun ñoo war a jàppante. ndax suñ jàppantee rek. Mm-hmm. bëri na loo xam ne lu fay xew. Mm-hmm. du xew yàlla mën nañu cee musal. Mm-hmm. yaa ngi dégg il faut ñun ñu wone suñ bennoo. suñ nekk benn suñ jàppante. da ngay gis ne lu bëri. loo xam ne nit ñaa ngi koy sànni fii di ko wax wala nangam ak nangam dina wàññeeku. dëgg la ndax ku xalaat ne. su ma waxee nangam mbooloo sàngam jóg daal suma kaw. dëgg la di nga arrêté. dëgg la. waaw kon nag ñu ngi leen di oo ci bés boobu noonu mhm. képp koy wax ashhadu an laa ilaha illa allah ñu ngi la cay oo daaw paradise nañ ko defoon mhm. wax dëgg yàlla mu fees trop nit ñi ñëw trop mhm. waaye lenn ci jaam yàlla yi ñaan ñu pour nañ ko xacc fii nga xam ne fala dégg nga nit ñi gën a jege macha allah gën a jàppandal ci ñoom nga xam ne ku ñuy boor ba ñëwee rek di nga mën a egg foofu loolu moo tax ñu defe woon ko foofu noonu waaye nag ñu ngi cay oo ñëpp sëriñ bi incha allah ñëpp képp ko fi teew rek ñu ngi la cay oo incha allah képp ku fa ñëw nekku jotaay bu ñuy tuutale kenn nekku jotaay bu ñuy xeebale kenn nekku jotaay boo xam ne da ngay ekkati kii suufal kii lu ñuy oote daal mooy bennoo nekk benn loolu la ñuy oote ñu ngi cay oo ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Ousseynou. sama xol sedd na lool xam naa ne waxtu wi jeex na tàkk ñi ngi sant mbooleem koo xam ne yaa ngi doon teewlu jataay bi tey soppee sëñ maam na Mboup ñu ngi leen di sant àdduna wërngal képp rek képp koo xam ne sopp nga ñu ngir jëmm yàlla ak yonent bi ak sëriñ tubaa ak xasida yi nga xam ne ci la ñuy nam na bi foo mën a nekk di ñu gis ak nga ñuy dégg ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yalla liggéey bi lepp luñ ci am ci lan war ak sarar ci fay yalla yalla ñu ko suñu borom boole ci barki khadim comme ni señ mam Cheikh fay limé rek moy man may mom sama xol li ci nek mënuma ko génné waye limu wax ci ñi ma andal man ñi dong la am ndax nit mënut dara dañ koy dimbali rek waye ñi ñoma dimbali ñoma ma ñoma sigil buñ ñun and ak man ba pare iñan man na maa baña tollu fi ma tollu buñ ñun and ak man ba pare yene wuñ ma lañ may defal man na baña and fi ma tollu kon ma ngi leen di sant di leen gëreem di leen baye ak Serigne Touba mi nga xamne mom nañ bokk di ko liggéeyal te yaakar ko ak payam suñu mbokk soxna yi soxna Gan Siri Fall soxna Ami cham soxna May waye nak wolof day faral di wax nan ku lak mburu tuddu dekk tàgg boo gis manta ñàkk jàppal diw lépp loo xam ne am naa ko ci bërëb bi jotaay bi tey yàlla nga ko dogal suñu yaay ji di yaa roqi jóob ak njabootam yaa roqi jóob mii dama bëgg ñu ñaanal ko yàlla suñ borom wéral ko ak waa këram ak njabootam mm-hmm. soxna Aïcha ak soxna Aida nyom nyepu mhm. gis nga karo yi nim sete ak neeg bi nim yàññe macha allah mhm. bañ xamé né da ngeen di ñew lañ taral fi bam taru kon dama bëgg ngeen xassal leen mhm. yalla defal leen rawati na sunu yaay ji ndax yir nañu uuf nañu uuf sunu njabot japp nañu japp sunu njabot kuma xam min kër gi xam na né fi wax dëgg yalla lu def kon mom won na ma fi sama kër la té dara lu ko yalla ak yoonte bi ak Serigne Touba kon maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di ko seddal adduna bépp suñ borom yàggal ko fi suñ Ousseynou bëgg naa ngeen ñaanal njabootam gi nekk ci biti suñ borom sàmm leen te aar leen wattu leen may leen xéewal gañ fay sàkku bañ mën koo andiwaat fii te fekk ko fekk jàmm ak salaam yàlla dara tëwu ko doomu aadama mooy jaaxle waaye yàlla du jaaxle ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla boo gis loo ragal ci barke Seexul Xaddiim kon sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp xanaa ñu Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne lu am ci ñun mooma ndax moo wane Serigne tubaa ñu tàdd koy sant rek ñaanaale ko incha allahu rabbi waaye balaa maa dugg ci Cheikh Ibra alxuraan dane wa aatal bio tamit abwaabiha sama yaay mii maam Seydi Hadji Malick la gëm yaa roqi Diop te ku tagg yonent bi sëriñ tubaa tagg ko maam Seydi Hadji Malick tagg ko mu bokk ci tarixam ñu defe ko fii ci biir néegam du teggin ñu ñaan jàng bay ñibbi te nag siyaaruñ ko mhm. kon ñu jaar ci waawoon dem ndarfal